wane ne rek benn euh, benn erreur bu mag a mag la boo xamante ne euh, administration pénitentiaire je pense que dinañ ko corriger moo tax man damay njort ne. est-ce que boo moytuwul boo moytuwul. est-ce que erreur la. waaw euh, bon naka la ñu def ba téléphone ko yaatal nañ ko commencer ci kaw tam ba ci suuf. mooy dina am ñu daanu moom. Mhm. dina am ñu daanu parce que enquête bi boo ko buñ buñ ko doxalee ñoom ñoom wax nañ ko ci quotidien parce que boo déggee da dégg ñu am na ñoo xam ne ay charrette lañ leen tuddee mooy ñuy jàllale charrette lañ ñu tuddee mooy charrette yi xam nga loolu musiba la. te ci euh, pénitentiaire la. non du du ci yem lu ci yem moo tax ma ne boo moytul man xalaat naa bu kilifa réew mi dellusee xalaat naa Cap Manuel ak euh, boo moytul boo moytul ña fa nekk dina may dina dina may kii quoi. Hmm. waaw xalaat naa daal boo moytul. Euh, boo moytul dana dana dana lii changement yeeg sanction yi mën na bañ a yem ci ki nga xamante ne rek mooy euh, euh, mooy détenu ak garde yi nga xamante ñoo fa nekk ak ñoom parce que affaire bi garaaw na garaawaay boo xamante ne émeutes yi bon violence yi fa doon am ci biir foofu yëpp ak téléphone yi ko doon filmer fi ñu toll nii après léegi nag ay sanctions la ñu commencé di dund. parce que dañ leen di sanctionné visite yi neen dañ koy wàññi lekk yi est que dina duggati yooyu yëpp dañ koy dañuy dañuy dañuy yëpp dañ koy arrêté dakkandeegum en attendant ñu xaar situation hôpital ñu xool tamit naka la ñuy def visite yenn heure lay doonaat lan moo fay dugg ma ne leen finalement léegi nu ngeen defa pom xanaa da ngeen tere dugal pom wala leneen nag wala da ngeen koy feccat dagate ko ginaar yi ginaar yi ñuy roofee kii puce ginaar yi ñuy roofee puce ak yëpp ci biir rek ak kii ak portable xam nga loolu ça pose ak daal indi ko daal ndekete dafa dem tailleur euh, autant pour uude mu teppi ko dugal suuf euh, puce bi talon bi ñawaat ko daal di koy daal di daal daal di ko yow boo ñëwee dugg si daal nga jël sa kii teppi jël sa lamset teppi ko daal di génnee sa puce donc yëpp ay ay ay ay doxalin la yoo xamante ne euh, yaakaar naa ni daal euh, ah, wane na faay am na wane na faay am na ci façon anam bi nga xam ne moom la ñuy téewe détenu yi et certainement nag dinañu taxawaat xoolaat ko bu baax a baax a baax parce que téléphone yi bu fa duggee dañ ko faa dugal. yamba bu fa duggee dañ ko faa dugal mhm. donc ñoom lii wane na ne système de surveillance bi nga xam ne teg nañ ko am na ay failles léegi naka lañuy ñuy def ba renforcer ko je disais que ne dina bokk si leen dimbali ñu jox leen ay scanner ñu ay scanner comme yi nga xamante ne moom la douane bi du yor nga xamante ne boo ko tegee nii rek dangay xam objet bi nekk ci biir ah d'accord waay mooy ay scanner waaye yi nekk ci aéroport yi merci ak douane bi sax am na ko léegi mhm. moo tax jàpp drogue bi ne tulleeg màlle léegi li nga daan yor sa oto ci biir jël tool bi dindi ko teg ko ci am noo ko defaatee day jàll parfois kenn du ko xam mais léegi il suffit que ñu jël affaire bi jàllale ko ci nii rek da def nii rek mel ni genre film da lay wan nekk ci biir gis saaki tegu ci biir nii mais loolu tamit boo ko tegee nii pompe bi bu dee mhm, mhm. kii di nga xam ne lii yax la wala lii ceeb lu rax ci ceeb beex yax bi yax bi da koy génnee euh, parce que bu njëkk boo xanaa xam loolu moo tax boo détenu boo leen yóbbul bu ñu bu ñu leen nilee ceeb ñu koy def di ko di ko jaxase parce que au début dañu naan bu njëkk ba dañu si daan dugal ci biir yàmbaay laxas yeeg ci biir ceeb bi lañ ko daan dugal ak yooyu finalement xam dem nañ ba xam ne laxas bi léegi parce que bu dee carotte yeeg yëpp dañ koy daggate waaye am na yoo xamante ne boo ko daggul amaa na ñu ñu dugal ko ci biir carotte beeg yeneen ak moo tax ma jàpp ne daal euh, comme technologie toll na fenn fii il faut ñu équiper leen tamit renforcer leen parce que gis nga ay nit kese lañ ah, ñoom ñuy contrôler waxuma nag charrette yi nga xam ne ñooy dimbali ñuy jàll mais am na mën nañoo juum parce que mën ngay contrôler dara surtout koo xamante ne day ñu dégg ko def chaque jour da nga ko def chaque jour nga contrôler ko dina am benn waxante rek mën nga mën na la échapper quoi. dina am bon mën na la euh, nga xool def nii def nii ndekete affaire bi rëcc na dem na mu jàll mu jur musiba ci biir ci biir ci biir kaso bi mhm. fekk war nga ko loolu nag su fekkonte ne yàlla dimbali la ngeen am scanner boo xamante ne da ngeen koy scanner bool teg ko nii moom fu muy jàll. comme bool bu nga ñëw day teg am benn benn tapis mu jàll si tapis bi ñu xool bu amee mu sonné te te te ngeen jël boor ba ber ko. c'est vrai euh, di dem tijji bool bi xool nangam ak mu jàll loolu je pense que euh, peut-être dans l'avenir bu ñu avancé mën na doon loo xam ne dina ñëw mais xam nga ne lii image yi ñu doon gis. Euh, campagnat image yu ñaaw ñaaw la. détenu yi ci biir ak coow la am ni yëpp vraiment ñi ngi ñaan yàlla mu gëj fa daal. amiin yaa ci ci lu waaw parce que ci wàllum yoon parce que euh, naam fait divers la waaye xam naa ne mbir bi moom da ñàkk nu yoon dina ci am wàll am na ci ay mhm. xibaar yu ñu jot sax ñu ne arrêté nañu ko mais wóoragul vérifié guñu ko mu nekk euh, benn rappeur boo xamante ni ñu ngi koy woowee Dof Ndeye vidéo boo xamante ni viral na ci réseaux sociaux yi ñu gis muy attaque benn ndaw boo xamante ni neen dafa toj ay veeru otoom tax mu mu jàpp ko jabate ko ba ñenn ci ay euh, moom sax wax na ko ne jamono ji waa ji mi ngi ci situation bu critique yéen ci ay commentaire aussi ñu ngi koy gis ni c'est vrai waa ji jamono juñ toll nii mi ngi ci duggante dund ak dee daf ndey nag yàgg nay def ay conneries gis nañ manifestation yi weesu mu de génnay jaasi ak ànd ak ay nervi eh, di menacer koñ ba mu dëkk ne kenn du fa génn kenn du fa taal mu mel amoon na ay link yi nga xamante ni amaloon amoon na ko ak eh, gouvernement bi fi bi fi jógee bi nga gisee vidéo bi Moustapha ban ah, gis-gis nga ci am merci Diarra ci ñi nga posé question bi. Mm-hmm. une question bien posée à moitié répondue. Mm-hmm. Euh, daanaka tontu nga ko parce que ni nga ko posé danga nga def link bi ak nguur gi fi jógee te effectivement bokk na si tooñ yi nga xam ne Macky Sall tooñ nañu ko. Mm-hmm. parce que pour man kaaw dof nday Macky Sall moo ko moo ko ràngati. moo ko dolli moo ko dooleel ak doom ji Amadou Sall bi nga xamante ne dafa doon euh, wut du ma ko tuddee wut base waaye dafa doon jéem a géej récupérer fi nga xamante moo di Grand Yoff jox leen ay Jakarta. jël dof nday ak ñeneen di affiché wandoo ak di leen jàppale mi génnee jaasi naan di menace ay nit di menace ay nit ay waa a jàpp loolu def na ko fi hmm. léegi loolu boo koy def euh, nga koy def te sa doom moo ko def yow nga si teg sa bët waxoo benn policier arrêté wu ko kenn deful dara te bu ñu nekkoon ci dëkk bu sérieux vidéo boobu mu defoon ci oto bi génnee euh, ngànnaayam am taxaw waxu jëm wax ba muy pare balaa moo yëg lañ koy jàpp hmm. mais kenn jàpp ko pourquoi parce que Macky Sall moo fi nekkoon kenn jàpp ko pourquoi parce que a a a comment il s'appelle Amadou Sall doomu Macky Sall moo ko moo moo ko dooleel mm. di leen jox ay Jakarta euh, di di di entretenir benn gang boo xamante ne tey jii ñëpp xam nañu seen place du woon ci biti kon tey jii moom moo ñu lor moom moo ñu bàyyeex koo xamante ne tey jii dañ ko waroon a corriger à l'époque et malheureusement nag tey jii moom comprendre ne régime bi changé na parce que bu mu defee li mu gisee vidéo bi laa xam ne comprendre ne régime bi changé la woon woon ni na parce que su fekkoonte ne daf ko daan def suu Macky Sall dara du ko ci fekk daf koy def pare dem ñibbi toog këram def nii def nii ak nii ak nii du mujj fen noo loolu weesu na beneen mbir tamit gis nga dafa am côté yoo xamante ne fii euh, boo fa duggee boo Grand Yoff fu ñuy wax ay Senzala am na journaliste yoo xam ne jot nañ faa def reportage boo demee nga liir ko mais beneen àddina la. beneen àddina la beneen àddina la foo xamante ne tey jii am na policier yoo xam ne nanguñu faa sax jege wala fa dem ça problème. pour man gox yu mel noonu ak yoo xam ne ñi fa dëkk ñemewuñ sax génn huit heures wala neuf xale yu ndaw di la romb nii am yor benn melokaan bi sa téléphone nangu woo faa jaar bu ñu la séenee nga fa ñëw xanaa gan nga looy def ci ruq bi dem na ba côté yoo xam ne ay malfaiteurs dañ koo nangu. yooyu pour man tamit suñu euh, force de l'ordre yi war nañu jugaat delloowaat gox yooyu nga xamante ne nelawatuñu ba yandoor c'est vrai gëmmatuñu euh, amatuñu jàmm ñu delloowaat leen seen i seen i seen seen seen i parce que fii am na fi gox yoo xamante ne tey jii gis nga dañu dem ba daanaka beneen Sénégal la daal mm-hmm. beneen Sénégal la mm-hmm. waaw beneen Sénégal la te voilà takk der yi waaw non non non dañuy dem ba c'est des c'est des repris justice yoo xamante ne miin nañ prison prison defatu leen dara ñu teg ci koñ bi yor seen paaka wala lu leen neex ñu def lu leen neex ñu jël lu leen ñu siif boo waxee waa koñ bi lu ñuy wax kenn portetul plainte bàyyi ko la ñuy wax buñ ko séenee lu ñëw xam nga jëf ci dof nday doon jëf nii tey ji ñëpp gis vidéo mais loolu kooku tey ji li mu def noo ko mën a qualifier mm-hmm. non seulement yaa ngi fajal sa bopp waaye jam naa ko ba mu def nii def naa nii ak nii après dara du la ci fekk bon. loolu c'était sous Macky Sall sax ci gis naa autopolice ñëw ba pare mais après da gis mu dem. waaw mu ne mais mais parfois problème effectif day am mais li ma la léegi ci koñ mais tey jii jaar bu fekkee ne ñetti élément ngeen dugg ci benn koñ boo xamante ne. fukk ak juróomi wëyoo ngi fa mais foofu ah. di di ngeen fa dugg yéen ñetti élément wala ñaari élément am na yoo xamante ne pour nga démanteler ko du loo xamante ne benn fan wala wala wala wala quelques il faudra ngeen indi benn effectif bu mag ñu def fa descente dajale ñëpp buub leen et puis nag am surveillance boobu dafay continuer oto foo ko fekk day rond di def nii di def nii di def nii su ko defee benn benn yi fa desoon sax dañuy génne dem parce que xam nañu fi mënatuñu fee opérer. Mhm. pour ma loolu la waa Grand Yoff soxla ñu gën leen dimbali seen sécurité parce que am na fa ay gox goxaat yoo xamante ne vraiment soxla nañ bu baax a baax sécurité nelawatuñu yandooratuñu amatuñu jàmm. Mhm. parce que am na ay malfaiteurs yoo xamante ne élire nañ fa demeure demeure te vraiment caaxaan jëlewu leen fa. d' accord Moustapha ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax cant ak ngërëm ñeel na la. maa ngi lay jaajëfal soxna Diarra. di la hmm. jaajëfal di am mbégte doon sekk ak yow waxtaan bi di remercier ñëpp ñi nga xam ne dañuy safoo